buñu nous déposer, déposé cahier de une ñu def avec ak président vidéo-conférence bobu du doon euh, jamono di revendiquer wala ñu bi jamono bu nga en quelque sorte day évaluer implication monde du travail ci guerre bi nga la ci président parce que bim ñu recevoir di consulter pour taxawal politique bi mu crise bi pour mu sécuriser salariés pour nous sauvegarder les encadrer également chômage technique mais aussi pour nous suqali l'entreprise euh, ak économie mais ak askan wi loolu yëpp nous ko en compte kon la première ordonnance nous jël pris en compte loolu kon war nañ ko parce que tey jii am plan de résilience économique et sociale bu nga xam mesures am mesure d'accompagnement pour l'entreprise, il am aussi mesure mesures pour liggéey bi amna mesure yu mu jël aussi pour askan wi jàppale len ci walu dundu ak yenen ba taxna mesure yoyu surtout ci entreprise ñu ngi ñaan mesure yi ñu gaaw ko mettre en œuvre pour que ñu mëna respecter ordonnance bi mais également dette yi nga xamné bor bi nga xamné mom le nguur gi yoreeloon aussi yenn entreprise te bala crise bi mu indil woon len jafe-jafe bor aussi nañ fexé nuñ ko euh, bolé ci mesure d'accompagnement yi bo boo amee am naa dina am solo lolu lañ ko bëggoon sargalé sargale mais mom aussi don nako permettre mu yëkëti kàddu message jëmale ci monde du travail gën ñu ñaaxaat gën a ñaaxaat kat yi monde du travail bi yépp ak njaatige yi ci guerre bi ñu sanjafu ñu ñu ñu gën ci takkat suñu tubéy guerre bu nga xamné dafa doy war gisulo ki ngay xexal te mu

mbas mi am na lu ñu ci war a jàngate lu am solo liñ ci war a jàngate mooy ni adduna bi doon doxe ba egg si fii mënatul dem adduna bu nga xam ne bopp sa bopp la alal ji dañ koy dajale sëq bu néew di ko jariñoo ñeneen ñi ko doon produire duñ ci am dara nit ñi nga xam ne dañ leen a ber dafa am nit ñu nga xam ne fii ak ca Europe ak fépp ci àdduna bi ñun mooy li ñuy wax travailleurs marginaux travailleurs atypiques yi nuurukata buuj ji ak ñi mel ni ñoom ak góorgóorlu yu sonn yi lool ak ñi nekk Europe amuñu fu ñu dëkk ci mbedd mi mooy seen kër amuñu dara ñu leen di wax SDF sans domicile fixe tey jii dañoo gis ne mbas mi lim ñu jàngal mooy solidarité ak valeuru travail war nañ ko fonk te war nañ ko boole ci doxalinu àdduna tey jii ñooñu nga xam ne dañ leen wooye woon sans domicile fixe kenn faalewu leen dañ leen daan romb duñ leen yëg mel ni duñu ay nit ñooñu tey jii ca Californie état wu Californie am na fa 500000 travail SDF tey jii ñoom ñëpp jël nañ leen dugal leen ci hôtel yi utal leen ay home car defal leen ay dëkkuwaay yu bakkane ba pare ut ay personnel médical ñu leen di surveiller waaw loolu mënuñu ko wan a boole ci doxalinu aduna. kon ñooñu duñ nekk ay SDF loolu jangkat la buñ ci war a kon war nañ bàyyi xel amul benn nation lumu am am doole lumu am am katan bu nga mën nga muñ solidarité tey jii dañu gis ne Russie mi ngi chargé ay cargo ay cargo yu bari di yóbbu di dimbalé États-Unis kan mo mëna a xalaatoon loolu te loolu tey mbass mi woné nako kon gis nañu né aussi état yi ñu ngi wax résilience économique et sociale kon politique publique yi nañ intégrer donne résilience économique et sociale gis nañu né ñun militants du progrès dañ dan wax né

あ